mbokk yi bu ñu indee suñu signification concept muy firdaws f bi ci moowu français ñu ngi ko tuddee femme femme nag buñ ko waxee rek dafa làmbool lépp femme mën nañ ne mooy matrice mooy ki nga xamante baax da auzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala donc euh, mbokk yi ñu indi leen li nga xamante ni mooy suñu euh, signification wu concept bu bees bi nga xamante ni rek moom la ñu jël euh, fas yéene ko tuddee suñu réseau yi ndànk-ndànk pour changer rek li nga xamante ni mooy Fatima Zahra bi donc ñu tànn baat bi nga xamante ni mooy Firdaws coaching si nag buñ ko waxee ku ne xam na ni rek euh, mooy euh, kër ga gën a kawe ci aljana te damay faral di dégg euh, benn xadis bi nga xamante ni yonent bi sallallahu day wax ni am na si aljana bi nga xamante ni mu ngi fii ci kaw suuf ku ko ñamul dooñam ñam bi nga xamante ni moo nekk fee ca kaw ci suñu borom kon cela veut dire que li nga xamante ni moom mooy développement personnel but ak objectif final bi du dara lu dul ñu am li nga xam ne mooy àjjanay xol ndax doomu aadama mën nga nekk fii ci kaw suuf am lu nekk waaye amoo àjjanay xol àjjanay xol nag nekk li nga xamante ni warul réer réer benn jullit jullit bu nekk war na ko ñam ñun nag euh, Firdawsi coaching ñu ñëw jël li nga xamante ni mooy développement personnel daal di koy assimiler ak suñu diine segg ko ak suñu diine ba nga xamante ni jullit bu nekk dina ci mën a tënku ba nga xamante ni daf lay dimbali sax ci sa diine mais du la soriloo ci sa diine kon suñu objectif final lépp li nga xamante ni moo war a tax ñuy jàng suñu diine wala di jàng développement personnel ngir améliorer suñu jukko ngir améliorer suñu comportement dañ siy dellu rekk ngir euh, bëgg ngërëmu yàlla waaye ngir bëgg yàlla suñu boroom jéggal ñu ba keroog yow mal mu réserver ñu li nga xamante ni rek euh, mooy euh, ca hôtel 5 étoiles ya nekk ca euh, ca kaw aljana ñu di ko wax jannatu firdaws jàkkaarloog suñu yonent bi tedd bi nga xamante ni mooy suñu yonent bi ñu bëgg suñu xol mooy ki ñuy topp mooy ki ñuy roy mooy ki nga xamante ni yàlla suñu borom nee na képp ku ko topp rek di nga taxee kon yàlla nañu yàlla yombal lañu di ko topp kon mbokk yi bu ñu indee suñu signification concept muy firdaws f bi ci moowu français ñu ngi ko tuddee femme femme nag buñ ko waxee rek dafa làmbul lépp femme mën nañ ne mooy matrice mooy ki nga xamante ni ci moom la nit ñi di sosoo mooy mère mooy yaay mooy ki nga xam ne ci moom la nit ñi di dellu mooy ki nga xam ne mooy joxe la vie mooy ki nga xamante ni loo ko jox mu meññi ko mooy ki nga xamante ni mooy créer lépp li nga xamante ni rek mooy environnement wam di dolli ak di améliorer lépp li nga xamante ni rek mooy dund ci kaw suuf ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy indépendante indépendante buñ ko waxee mooy lan mooy doomu aadama waroo am lenn loo xamante ni daf lay créer dépendance fii ci àddina ndax àddina lépp loo fi dépendre rek daanaka da lay téye en otage doomu aadama ci kenn nga war a dépendre mu yàlla suñu borom. nit boo dépendre ci sa moroomu doomu aadama ak dépendance bi mu mën a doon muy affectif muy émotionnel muy économique muy lu mu mën a doon rek dalay dugal ci musiba tey ñi nga xam ne ñooy dépendant mooy ñi nga xam ne amuñu choix lu ci mel ni liir bi soogu juddu ba keroog muy majeur dafay dépendant ci ay waajuram mënu ci dara tànn ko waaye yàlla moo dogalee noonu dund gi wala ki nga xam ne dafa feebar mënul dara boppam wala ki nga xam dafa màgget ba nga xamante ni day xaar ay bësam mooy les personnes démunies wala les personnes handicapées waaye bu weesoo loolu yow mi nga xamante ni yàlla suñu borom daf la sàkk jox la ay cër jox la xel xel di outil bu am solo ndax nit toog na ci chaise roulant mais yàlla may ko xel xel boobu mujj ci def loo xamante ni ki yore ñeenti membre am sax mënu koo def kon cela veut dire que xel mooy doole waaye xel moomu xol moo koy conditionné kon lépp lu nekk ci sa xel bi sa xol bee koy filtre lépp lu sa xol bi filtré mooy conditionné sa comportement ak say jëf kon indépendant buñ ko waxee mooy doomu aadama bi danga nga war a jàng di bañ a yaakaar di bañ a xaar di bañ laaj di bañ a jël sa àddina rekk teg ko ci doomu aadama yi waaye jëlal sa lépp nga teg ko ci yàlla suñu borom muy ci côté spirituel muy ci côté matériel muy ci côté lu mu mën a doon ci kaw suuf nga xam ni yi doomu aadama bi da nga ko yaakaar rek waaye yàlla mooy ki nga xamante ni moo lay jox dafa di kay li ñuy wax naan yàlla du wàcc di jox kenn waaye dalay utal ay sabab jaarale ko ci ay cause kon ak loo yaakaar yaakaar yaakaar doomu aadama xamal ni yàlla rek lay neex mu sotti kon am na ñi nga xam ne tey dépendance yàq na seen àddina ñi dépendant ci jàpp ni góor rekk moo mën a tax tey ñu doon jigéen bu am dara ñuy jaay seen yaram di jaay seen bopp di wàccee li nga xam ne mooy seen dignité ak seen daraja nga gis ci ñi nga xamante ni tey jàpp nañ ni seen ay problème naqar naqari àddina yi ñuy dund mettitu àddina yu ñuy dund euh, li nga xamante ni rek mooy produit abusifs yi wala stupéfiants yi moo leen ci mën a génne ñuy abuser ci alcool wala di abuser ci drogue yi pour lan pour mun a soulager seen douleur ak seen peine nga gis ñi nga xamante ni tey dépendance bi ñuy am mooy dépendre dépendre si nit ñi ci seen ay émotions li ñu wax dépendance affective nga nekk ak nit ñi nga jàpp ni nit ñi bëgg gi ñu lay bëgg moo waral nga am valeur importance bi ñu lay jox mooy waral yow nga doon quelqu'un bët bi ñu lay xool mooy tax yow nga doon ki nga war a doon ba tax na ngay topp nit ñi di topp seeni bànneex lu ñu la wax nga di leen déggal ba buñ la santee mooy yàlla sax danga leen di déggal foo toll yaa ngi soxla di attirer attention wu nit ñi boo ko amul sa xol bi day vide sa xol bi day jeex fuñ la fekk yaa ngi ci réseaux yi yaa ngi fexe di attirer attention yaa ngi fexe di def des chose pour nit ñi di ñëw ci yow wala di la tagg wala di la gërëm wala di la yëkkati wala di la loolu lu tax parce que da nga soxla affection boobu nit ñi di la jox pour nga dund boo ko amatul tu te sens day mel ni sa dund gi amul importance kon encore une fois dépendance affective boobu ngay am ci nit ñi ba mu nar la yàqal sa dund nar la teggil sax sa digganteek sa borom nar ko ñagasal waaye nar a yàq sa jukko xamal ni mën nga delluwaat ci sa borom te xam ni ci yàlla suñu borom rek la war a dépendant ndax yàlla boo dépendant ci moom yàlla boo ko bëggee mu jox la mbëggeelam ba mu jeex ba dootoo soxla mbëggeel doomu aadama mbëggeel doomu aadama mottaliku kaay lay doon. waaye dootul doon sa bit final wala sa objectif finaal suñu objectif ci kaw suuf mooy fexe topp yàlla déggal ko ba am li nga xam ne mooy mbëggeelu yàlla muy l'amour la kon dootoo soxla mbëggeelu nit bay am dépendance affective ci doomu aadama beneen bi mooy ñu ñëw ci li nga xam ne mooy aspect relationnel mbokk yi comme ni ma ko faral di waxee sama vidéo yi di jàll mooy lan mooy doomu aadama bi ak koo mën a doom ak noo mën a toll da nga soxla li nga xamante ni mooy relation ne ak yàlla mi la sàq sa relation ak sa borom mooy lan tey boo ne diw sama xarit la ñu bëri dañ lay laaj ban relation nga am ak moom tey boo ne diw sama jëkkër la rek dañ naan relation sentimentale diw sama waajur la ah relation parentale diw sama doom la ah relation parentale waaye yàlla suñu borom mooy sama borom ban relation nga am ak moom ay waay ñaata doomu aadama tey ñooy dund te amuñu ak yàlla relation ndax am ak yàlla relation mooy lan mooy boo yeewoo teg sa ñaari tànk ci kaw suuf li nga njëkk a xalaat mooy sant yàlla mooy def say iskaar gërëm yàlla bam la dekkalee ci nelaw gi nga xamante ni mooy déegu ndaw gi nga xam ni ci nga nekkoon inconscient yëgoo xew ndax tey boo yeewoo sant sa borom bëccëg jot mu leer la ni war nga julli war nga woor war nga jàng alxuraan war nga wax lu baax lépp looy def yaa ngi sàmm moytu lu yàq sa relation ak sa borom nga dem ba construire benn relation bu dëgër sa diggante ak sa borom nga dem ba nga xam ne nit ñi liñ lay wax liñ lay xoolee idéologie yi ñuy am si yow seen ay yaakaar vraiment ça te fait ni chaud ni froid amul ci yow benn importance lu tax parce que yow yàlla ngay jëflanteel jëflante woo ak doomu aadama yi jëflante bi ngay jëflanteeg yàlla bu neexee doomu aadama yi xayrun bi leen naqaree xayrun ndax yàlla moo lay fay te nag damay wax ni ku sa relation ak sa borom baax d'habitude sax sa relation ak nit ñi day baax waaye boo paree sa relation ak sa borom nga xool sa relation ak sa propre personne sa bopp am na nit ñi nga xamante ni li ñu mën rek mooy apparence waaye tey bu ñu wéetee dañuy jooy dañuy vide bëgguñu seen bopp nawlawuñu seen bopp ndax ñu ngi culpabilisé wu ndax ñu ngi jàmbat ndax ñu ngi naqarlu lan moo tax mooy amuñu image bu baax ci seen bopp ñàkk image bu baax boobu ñuy ñu ñàkk seen bopp daf leen di jural xol bu tàng daf leen di jural ci rëccu ak ci jàmbat fu ñu toll ndax amuñu sentiment de satisfaction te mbokk yi li ma wax mooy relation bu jiitu mooy sa digganteeg sa borom une mu baax sa digganteeg sa bopp nga lijjanti ko day baax une fois nga am respect ci sa bopp nga yërëm sa bopp nga bëgg sa bopp ndax yërëm sa bopp mooy doo teg sa bopp loo xamante ni yàlla tegu la ko respecter sa bopp mooy lépp lu la yàlla tere di ko moytu ba nit du la xase bëgg sa bopp mooy képp koo xamante ni bëgg na la ak bëgg la yow bëgg nga sa bopp waaye boo delloo respecter sa bopp mooy doo def mukk loo xamante ni ku la ci gis ngaañi la wala ngay def nit loo xam ne da koy permettre muy accéder ngir mën la euh, manquer de respect kon aspect relationnel boobu balaa dara di xew mooy dimension entre yow ak sa borom di dimension entre yow ak yow di dimension entre yow ak nit ñi parce que nit ñu bari ñu am problème relationnel tey boo xoolee seen relation ak seen borom da gis dafa faay seen relation ak seen bopp joxuñu benn considération seen bopp kon ñu ñëw ci li nga xamante ni tey mooy suñu euh, quatrième dimension mooy li nga xamante ni mooy détermination mbokk yi dans la vie il faut qu'on soit déterminé détermination tey dafa manqué ñu bëri ndax détermination tey mooy lay may force détermination tey moo lay may nga jóg fas yéene jël benn yoon nga ni tey jeune la mënoon naa nekk fii di baali mënoon naa fi nekk di di meechu mënoon naa fi nekk di sollu gàtt mënoon naa fi nekk di déglu musique mënoon naa fi nekk di blow mais tànn ma loolu bien vrai que xam naa ni yoon bi ma tànn ñëpp dinañ ma reetaan ñëpp dinañ ma ŋàññ ñëpp dinañ ne dama tardé dama dama dama topp ay affaire pa branché wu ma xawma lan mooy xew connecté wu ma ba tey baax na mais li ma tànn mooy sama yoonu borom ba pare am ci détermination. te détermination bi mooy lan mooy fi ma bëgg àgg dinaa fa àgg na damay teg samay objectif définir ko bien clair viser ko dafa fas yéene àgg te kenn du ma détourné loolu mooy détermination mooy li nga bëgg da ngay gëm ni yàlla may na la xel bu mot sëkk boo ko mën a atteindre. yàlla may na la santé may na la doole may na la ay matuwaay ay jumtuwaay yoo xam ni boo xamul noo koy utiliser demal nga xool ku lay former à ce que nga mën a utiliser li nga xamante ni mooy force yi la yàlla may ndax xéewal yi ñu yàlla may muy force muy suñu xel macha allah di suñu cër. di lépp li nga xam ne rek yàlla suñu borom jox nañu ko war nañ koo mën a utiliser ba bépp objectif bu ñu teg ci kaw suuf muy lu baax di neex yàlla ñu viser ko war nañ faa mën a àgg war nañoo mën a viser objectif yu sori objectif yoo xam ne dañ naan ça c'est l'impossible mais dama naan ak yàlla suñu borom impossible existé wul verbe la boo xamante ni yàlla du ko conjuguer lépp lu yàlla suñu borom bëgg danaan kun fa yàqul mu daal di sotti kon boo bëgg yàlla mën na ko jox nga gëm ni tamit yàlla may na la yow en tant que personne capacité yoo ko defee kon da ngay foncer sa détermination daf lay àggale li nga xamante ne mooy sa objectif ñu ñëw ci li nga xam mooy suñu tomb numéro 5 mooy ambitieuse nit da nga may ambition ambition mooy lan mooy nit ñi bu ñu tollee ci naan dañuy dox seen ndaw yow nga fas yéene tabax sa màgget <laughs> waaw am na ñoo xam ne dañu juddu xamuñu seen maanaam xamuñu préparer seen ëllëg dañuy juddu liggéey foo caaxaane seen xaalis préparer wuñu seen ëllëg yow nga ambitieuse lan mooy ambitieuse mooy danga naan man de tey je suis jeune damay construire sama vie de futur dinaa fexe am ay projet yoo xamante ni dinaa stabiliser sama famille dinaa jàppale néew gi doole yi nekk sama famille dinaa construire école nit ñi di si jàng dinaa construire ay orphelinat trop euh, jirim yi ak ñi amul ay waajur ma mën leen a yore mën leen a jàppale dinaa construire hôpital dinaa construire fi ñuy jàngalee xam-xam dinaa donc ambitieuse fas yéene apporter ci société bi ngay dund beaucoup du choses yoo xamante ni tey même boo deewee sa tur du fay parce que def nga fi bàyyi nga fi jëmbat nga fi construire nga fi loo xamante ni doomu aadama yi dañ ciy jëriñu ba keroog ñuy dee ambitieuse mag ñi daan ko wax lan rëy bët tey ñun dañu am rapport boo xamante ni ak xaalis ak ambition rapport bu complexe la mooy en tant que qu'africain dafa mel ni dañu construire euh, mentalement à que euh, pare wuñu pour xam ni am nañu euh, possibilité mën a réussir wala am nañu possibilité mën a am alal wala am nañu possibilité mën a am li nga xamante ni tey bu ñu nee tubaab bi moom la ñu am ñun am nañ boobu possibilité. ba tax na tey sa doom bu nekkee xale sax amee ambition dangay commencé di ko freiner commencé di ko démoraliser commencé di ko gëmloo comme si c'était moom euh, il ne sera lii daal di ko mës a am non ku nekk bàyyi ko mu gëm ay rêvam tey sa doom buy rêvé ne ëllëg ci bi dama bëgg a construire ay oto yoo xam day naaw ci kaw asamaan si yow pour yow c'est impossible c'est normal parce que fii nga pour pourtant tey amaana ñi nga xamante ni tey ñoo doon dund ca jamonoy lajjoor bu ñu leen yeewoon ne leen tey am na appareil boo xam ne day yeb plus de 500 personnes di naaw ak ñoom ci kaw jaww ji dañ naan loo dañ naan nekk parce que lu tax mooy ñoom foofu la ñu tolloon kon tey dama naan nit ki bu fekkente ne tu es une personne da ngay xalaat. ay projet di ko construire di ko tëgg di ko teg liggéey ko ba tey même boo demoon ba màgget ba xabidaas yow doo jaaxle ndax construire nga sa màgget te sa màgget yaa ngi koy construire ci bi nga nekkee jeune kon loolu lu jar bàyyi xel la parce que on a tendance à ce que bu ñu tollee suñu jeunesse yàlla di dañuy xéewalal dañ koy caxat caxatee daal di bàyyi def lu ñu neex ëllëg ci biir nga màgget mere ku la deful dara te fekk na boobu yow yaarati sa jeunesse. ba tax na kon ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy suñu troisième tomb nekk en nàngale muy warrior warior nekk li nga xamante ni mën nañ ne mooy nit ki jàmbaar guerrier nit ki nga xamante ni tey eh, bu weesoo yàlla suñu borom daanaka fitu gaynde lay yor lépp lu mu visé xam nañ dina ko mën a atteindre te dara du ko du ko du ko ragalloo dara du ko yox yoxloo même bu jàkkaarloog obstacle bi da koy fexe défier day fexe euh, yëkkati obstacle bi mais du mës a delluwaat ginnaaw fa mu jóge woon kon warrior ci gàttal mooy ki nga xamante ni rek mooy la la guerrière wala la guerrier taxaw fas yéene percer fas yéene jàkkaarloog obstacle yi fas yéene muñ fas yéene indi lépp li nga xam mooy capacité pour atteindre ses ñu ñëw nag ci suñu dernière tombe mooy être spécial à chaque fois damay faral des fois di koy indi sama ay euh, femme leader di leen di laaj na leen déterminer déterminer leen ma pourquoi vous êtes spécial chaque personne est spéciale nit bu nekk da nga nit bu nekk danga nga uteeg sa morom ku nekk am nga li lay déterminer ku nekk am nga li lay rendre nga nekk une personne unique et spéciale te nit ki une fois que tey nga dem di chercher di jeex ci sa bopp di xool man qu'est-ce qui me rend man en tant que Fatma Zahra pourquoi je suis spéciale pourquoi je suis une femme pas comme toutes les autres pourquoi pourquoi pourquoi c'est à moi de le trouver et que loolu daf may may auto-estime loolu tey nit boo ko construire sa bopp da ngay am confiance sa bopp. daf lay jox auto estime da ngay xam ne en tant que nga nekk jigéen tey doo ñee sa beneen moroomu jigéen doo ñee sa beneen moroomu jigéen parce que dafa am lii wala dafa am lee wala dafa am laa lan moo tax parce que yow xam nga ni tu une personne spéciale lan moo tax parce que am nga lii te lii xam nga ni lu raar la te jigéen ñëpp ñoo ko am kon ku nekk am nga don boo xam ni yàlla may na la ko ci sa personnalité wala yàlla may na la ko ci sa xel wala ci sa xam-xam wala ci sa entourage lu tax lu lay déterminer tey nekk une spéciale encore une fois donc ñu am confiance suñu bopp ñu am confiance gëm yàlla xam fi ñu jëm déterminer ko et que lii mooy li nga xamante ni rek mooy euh, suñu suñu sept yi nga xam ni décriral nañ leen ko mu nekk li nga xam ne tey moo régir lépp li ñuy liggéey ngir jëmale doomu aadama yi ci kanam ngir génne leen ci ay problème ngir améliorer seen dund ngir teg leen ci yoon bi nga xamante ni mooy yoonu siraatul mustaqim ngir ñu taxaw jàppalante booloo bennoo rek ngir defar jukko yi ndax keroog yow mal xiyaam encore une comme ni ko suñu yonent bu tedd bi euh, alayhi salaatu wasalaam daan waxee di nga gis koo xamante ni dina ñëw euh, yow mal xiyaam taxaw ñu teg ci balansam lépp li nga xamante ni mooy ay jëfam ak ay comportement yu baax ak ay jaamu yàllaam tey jukkoom yu baax yooyu dominer li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi ndax jukko bu baax bu ñu fàtte ni ci jaamu yàlla la bokk nañu nañ jàpp ni jaamu yàlla mooy julli rek ak woor fekk na déedéet jëflante bu rafet jukko yu baax mooy jaamu yàlla ndax bari na ñi nga xam te dugg nañ ci lislaam te dara dugal leen ci lu dul apprécier jukko bu baax ak jëflante bu baax bi nga xamante ni ñu ngi ko doon jëflante ak seen interlocuteur kon ñu ngi leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah bu leen fàtte abonné suñu canal partage vidéo yi ba beneen incha allah ak seen yeneen